arbitre bi sifflé na ak Ibo Thiatou Malo mu ngi nekk écurie Grand Yoff Ibo mu ngi nekk kër Mbaye Fall Ibo moo la féetee càmmoñ Thiatou Malo moo la ñaari xale yi jege woon tooguñu Ibo ma ngay léemu ma ngay léemu kër Mbaye Fall Thiatou Malo ma nga taxaw di ko léew ma ngay léew ma arbitre bi leen ay coow jub ëffal jël naa sa karaw teg ko ci karaw bopp kii jël naa karaw kii taf ko ci rëbb bopp kii taa xale loolu lañ daan xeexee ëffal boo fa nekkee naan ëf ëf buñ la dóoree rond point case ba ngay dali arbitre bi sifflé na ndeysaan Caatu Malaw ak Ibo Ibo ikiruk Père Mbaye ikiri Grand ndaysaan kii féete la càmmoñ kii féete la ndijoor ndaysaan Ibou Thiatou Malaw Ibou Thiatou Malaw Ibou Thiatou Malaw Ibou bu kër Mbay Faal moo la féete càmmoñ jiital tànk càmmoñ Thiatou ndijoor jiital tànk càmmoñ ñoom ñaar ku ci nekk garde normal la léwto bi baax na de boo xoolee léwto ibo bi garde bi baax na de Caatu Malaw nag mbëru simple la ibo mbëru simple la bu rax macha allah ñoom ñaari xale ay bërekat lañ ay xeexkat lañ. Ndeysaan Ndeysaan door na Tuboo tuuse na ko door na kubu dal Caatu Maalo Ibo Ibo macha garde bi baax na taxawaay bi baax na Caatu Maalo garde bi moytul ni mu dugalal kubu dugalaat gis nga Caatu Malew garde bi des na cokkaas na Caatu Malew Ibo dóoraat Caatu Malew Ibo Caatu Caatu Malew Caatu Malaw door na wala daa dese coup bi Ibo moo doon door mu remis ko Ibo Caatu Caatu Malaw Ibo Caatu Caatu Malaw arbitre bi sifflé na woo na ñaari mbëri waxaat na arbitre sifflé waat na Ibo Thiatou Malaw Ibo Thiatou Malaw Ibo Thiatou Malaw Ibo Thiatou Malaw ña ngay lewaatoo ñoom ñaar Ibo Caatu Malaw Ibo Caatu Malaw Ibo Caatu Malaw Ibo Caatu Malaw Ibo Caatu Malaw Ibo Caatu Malaw Ibou Thiatou Malaw Ibou Thiatou Malaw Ibou Thiatou Malaw daw na jëlu ko Ibou jëlu na ko Ibou jëlu na ko Thiatou Malaw tëru na ko ñoom Ibo Thiatou Malaw Ibo Thiatou luy xew Thiatou Malaw bañ na Ibo ngi bëgg a tànte Thiatou Malaw yóotu tànk bi Ibo bañ na xale ñu ngi ne teg Ibo Thiatou gisuma waa Grand Yoff waa yënguwuñu xar na ko xar na ko takk bi wala déet Ibou daan na ko hee doomu kër Mbaye Fall bi daan na waaw waaw Ibou daan na laa ilaaha illallaah jël bu rëy la ko daan Caatu Malaw da koo takk yeegu ko fu sori daan ko jël bu amul benn werante laa ilaaha illallaah